Euh, salaamaaleykum maa ngi nuyu gaa yëpp di leen ziar ah. waaw di jégalu nag ci suba bi nii quoi am rek maa ngi bëgg ñëpp juste euh, live bi benn live bu gàtt rek bu ma doon def euh, pour remercier quoi pour remercier vraiment ñi nga xam ni soutenir nañu quoi ci combat bi par rapport ak sabar boobu nga xam ni ak ñaari jigéen yu bon yooyu Pape Diouf fi nii pour ñu teru leen aéroport et tout bon ñu ñaxtu woon ko. Euh, bi ñu ko ñaxtu aussi euh kilifa yi nga xamanteni ni ñoo nekk Sénégal d'abord abord dañ koy commencé ci collectif en ensemble jikko yi Babacar Mbou porte parole bi Cheikh Omar Diagne professeur ak aussi euh ak euh, sama waa euh Adama Mbou ah ak Cheikh Ndiaye nitu deug ak sama ñaari frère yi nga xam ñoo bokku ndey ak baay Jibril Guèye ak Alkane Guèye nga xam ne kër ga fekk leen yee leen yëkkati leen ne leen nañ leen dem euh, ñu xëy toute la journée aussi di wër média yi wax ak préfet parce que dañ ko woo jotuñu ko. Nous interpellé les médias Je di remercier médias quoi surtout euh, la presse sénégalaise Walfadjri DTV euh, Lamp Fall ak Touba TV nga avons vraiment moo intéressé ma leen remercie remercier quoi parce que aussi nous mënoon nañu si parce que gis avons fi une chaîne, nous avons ne une chaîne. Nous loolu euh, di aussi à Sénégal ils ont beaucoup appuyé ils ont si bu il faut nous remercier les gens. Ah. di remercier aussi préfet de Dakar de nous avoir aussi soutenus parce que nous dégué joy bi ko il a réagi parce que nous dañu waxoon dañ ko woo jotuñu ko ñu ko comme ko affaire du am on était prêt parce que ñun dañu def mobiliser en force am nañ ay boy yo xam dañu fa dañu jitu fofu les fa police jàppale leen nous. ay dit yo xam man lañ dégg may wax rek ñu dem police centrale donc après ñun bi ñu dans les lieux nous avons rek ñu préfet annulé l'affaire affaire bi Juste pour préfet juste pour wax ni ñu ah, surtout la presse sénégalaise mais presque je précise TV, DTV TV, DTV Lamp FM Lamp TV ak Touba TV télé valeur euh, di collectif 34 associations la société civile yo xamni amna musulman amna chrétien ay valeur lañuy sam ay valeur que lo xamanteni yow day kep ku pour Sénégal ñun duñ la ont nga Sénégal c'est-à-dire ñom ay Pape ils dañ leen fay pour ñu def promotion bonne, formation ont ñepp lañ di fay pour ñu def promotion mu ils di def ni ñuko fenn ont nak ñuy confondre quoi di wax ay ay wali ils Pape des suñu nekkul sen problème yoy non. parce que ñom ñepp des man xamewuma Wally Seck ak Pape Diouf ci ci def lu bon xamewuñ leen quoi mais ñun li am solo mooy mbon yàgg na am Sénégal quoi ñun ñi ngi jooy chaque jour li gars yi di wax ñu ngi jooy prostituée ñi ngi jooy yi xew Sénégal yëpp ñu ngi koy ñaxtu di ko jooy Pape Diouf alerté nañ ko woon ci clipam boobu noonu nga xam ne moom clipam moom ay taal rek la ci bëgg di wane ngeen baal ma ci baat mi utiliser biñ ko alerté mu jégalu dem censuré censuré yenn affaire yi ci vidéo mais mbon yàgg na am Sénégal ñoom yàgg nañ def sen yoy non mais promouvoir moy problème bi dem aéroport woo télé yi ñu filmer ko ay jigen yo xam ne nu nu la def ci internet bi fam bobu moy la malienne la moo fi tweeté won wax ni ben ministre sénégalais 20 millions lako jox pour mu koy soog nangul pour ñu teud ñom ñaar c'est que ñoñu ngeen baal ma quoi mais dañuy jaay sen bop kon ñoñu gis ma lu tax ñu ne waroon promouvoir di def ay tànd biir war ko organiser ñi ñangi def ay tànd biir Sénégal mais aussi on remercie le préfet de Dakar hein on le remercie tam ci limu def qu'on se dise la vérité aussi

Euh, ñi nga xam ne pare nañ ñëpp pour jàpp si waa collectif And Samm Jikko yi ma waxaat ko porte parole bi Babacar Mbuub Adama Mbuub xam nga donc donc euh, ñi ngi béggee ñi ngi bëggee baax a baax a baax képp koo xam ne yaa ngi yaa ngi yaa ngi bàyyi xel combat bi euh, képp koo xam ne yaa ngi jàpp ci liggéey bi ah média bi yëpp ngeen di bëggee bu baax a baax di leen remercier baax di wax ni amul lu ñu def loo xamante ni pour yàq la amul lu ñu def pour contre kenn ñu kenn mais valeurs yi bëgg ñun sàmm ñun dañoo bëgg sàmm noonal Serigne Touba ñu dañoo bëgg sam ndonal alaaji malik ndonal Baye Niass ñun dañoo bëgg sam ndonal limam lay ñu dañoo bëgg sam ndonal jàngu bi ndax Sénégal réew la moo xamante ñun buñu ñu gëmee suñu bopp mën nañ changer lépp ta affaire bi c'est nous qui faisons les textes c'est pas les textes qui nous font li fi nekk yëpp ay textes la yoo xam ne jotewul dara ak suñu diine te bu ñu góorgóorlu war nañu ko mën a changer ñàkk Sénégal ba ñu fi bàyyi xajal kenn koo xam ne yàqkat nga parce que ñoom yàqkat yi formation yi ñoo leen di dooleel di leen financer di leen may doole ñuy wër àdduna bi di dajale jigéen ñi di dajale góor ñi ci ay béréb ñuy yàq loolu anyway mën nañ ko def laxatu mais buñ koy promouvoir rek là ça nous interpelle et que képp koo xamante ni yow taxaw nga pour yàq rek xamal ni ñun taxaw nañ pour jàmmal la yow jàkkaarloog yow d' abord pacifiquement pacifiquement après ñuy soog yegg si nag ca la ca des donc loolu moo waraloon sama laaya bi tey du gudd maa ngi remercier ñëpp ñoo xam ne jàpp nañ ci combat bi rawatina Cheikh Ndiaye nitu dëgg rawatina Alkane Gueye sama frère Djibril Diagne sama frère rawatina euh, Babacar Mboup euh, porte parole lu ànd sàmm jikko yi Cheikh Oumar Diagne porte parole collectif non à la franc-maçonnerie ak ande sàmm jiko yi Adama Mboup aussi actif waaw ci fan fan yep nak ak ñi nga xam soutenir ñu ak media bi yep nak la presse bi nga xam ñoo si japp damay préciser nak, DTV ma ngi leen remercier bu baaxa a baax a baax allah ils sont braves su ñu woowee ñu te Walfadjri amuñu sen fay Sénégal macha allah ñu leen di gërëm di leen sant di leen remercier bu baaxa a baaxa baax vraiment Lamp fal TV ak Touba TV jërë ngeen jëf euh, di ñaan yalla rek ni affaire yi inshallah yeen yéen di ngeen ci comprendre ngeen japp ci sa su buñu joggé pour xéxal Sénégal rek ngeen comprendre ni Sénégal lañuy xéxal amuñu amuñu xeexuñu kenn nono wuñu kenn utuñ ci lenn lu dul gëreemal yalla luñ ci am jël ma ngi remercier ñëpp di gëreem ñëpp ah, wa salatu wassalamu ala rasulullah yeen jox dox daje xamna ni du yag dara parce que def na entretien ak président Sonko ñu waxtaan mu wax ma mom moy kan ak lan la gëm kon ni ma defoon entretien ak imam Alioune Badara ndaw fekk ko ci kasso bi ñu waxtaan mu wax ma mom moy kan non la defé entretien ak Sonko tête à tête mu wax ma moy kan ak lan la gëm incha allah ci dellu ci incha allah ci jaatal tay live bi lii la juste pour remercier ah, ma fàtte ni titre bi ma ci fàtte def média bi mais média bi ñi ma cité non ñu ngi si man la Abdou Karim Diébu ñu